Sonko bi nga xam ne Cour suprême dafa jox dossier bi au TGI de Dakar te boo moytul balaa ñuy statuer ñu génn parrainage yi. Euh, may mën a damay wax loo xam ne waxoon naa ko. Hmm. mais wax passé na passé nañ débat boobu euh, man yàlla dafa def je discute parfois avec des j'ai des amis qui sont quand même proches de Sonko. ñëpp ñëpp xam nañu ko nëppuma ko j'ai même des jeunes frères yoo xam ne dañu jege Sonko ñoom gudda mbuub am na ki muy wax ni sëriñam la sama mag la dama dañu jege jegewante donc man dama jàppoon ne Ousmane euh, mi nga xam ne euh, bi mu nekkee impo day duggu bureau par bureau di kaf di reetaan di chahuter di reetaan nit ñi di kaf di saboter di reetaan bureau par bureau bu paree dugg bureau Amadou ay collègues dañ doon wax ne euh, au fait ay collègues bu bu Ousmane duggee bureau Amadou ay collègues bu ñu soxlawaan Amadou dañuy dem doxi seen soxla parce que du génn jullite gentil Ousmane boobu dafa am el yoo xam ne dañu nekk dans la radicalité et dès le début j'ai dit que tôt ou tard Ousmane ñaar la mën a def continuer ak lii mu mu am problème mbaa mu arrêté ko day obligé reprendre une partie du travail politique bi mu def et loolu moo am malheureusement Euh, léegi nag Ousmane boobu bi mu nee du wuyu ji dama wax ay nitam ne leen ne leen ko mu wuyu ji du wuyu ji dafa ni leen ne leen ko mu wuyu ji parce que bu wuyu jiwul lu muy jur day graaw du yomba faj parce que buñ ko fàtte buñ ko jugé te teewul buñ ko dindee ci liste yi mu duggaat day compliqué parce que commission rek moo war a mën a réunir pour dugalaat ko et commission yi dafa am app délai bu ko bu leen loi bi jox pour ñu mën a réunir pour modifier wala réviser loolu kañ ñëpp xam nañu ko ma dégg ma wax man j'ai j'ai même appelé Ndiaga Sylla ma gis Ndiaga woo ko Ndiaga wax ko ne ko na wuyu ji moo wax ñeneen parce que j'ai des frères quand même là-dedans des pour qui j'ai la plus grande estime dama jàpp ne en dehors de dem violet couvre-feu dem ci place boobu bëgguma cee dolli dellu si la deuxième erreur majeure de Ousmane mooy li mu demul wuyu ji. d'avoir défié la justice. d'avoir défié la justice d'avoir défié les juges d'avoir dit qu'il ne reconnaît pas les juges l'institution judiciaire pourtant ci ñooñu la dellu pour def appel. mu dugg ci procédure boo xam ne mënoon na koo éviter boppam bu fekkoon dafa wuyu ci parce que juge yi xëy na dans tous les systèmes il de a des euh, voilà il y des euh, euh y des problèmes avec certains mais il y a des juges indépendants. ah ñoom d'ailleurs li ñu choisir ni c'est la bonne démarche aujourd'hui ñu ngi def une bataille judiciaire. waaw ouais, non ab évoluer na sax Ousmane parce que nee na léegi tactique lay def. pour man évoluer na nee na léegi day tactique. béy dafa woy mbuus walla léegi ne day tactique. mais est-ce que béy dafa woy mbuus li ma waxoon li ma waxoon dafa am ku ma woo. un responsable des droits de l'homme saa yu problème dëkk bi léegi rek dama koy woo ñu waxtaan moo tax yenn yenn idées yi man duma ko génne noonu dama ne ko ci mois de juin. ma ne ko toll nañ fu nga xam ni c'est irréversible Macky woo na kaay ñu waxtaan wax naa condition yii nga xam ne ci la Macky woowee Ousmane ne ko kaay ñu waxtaan man maa waxtaan ak Barthélémy Diaz waaw ñu waxtaan mu ne ma wax nañu lii di di ma ne ko ba président bu wootee du wéet mu ne ma waxtaan naag Ousmane Ousmane d'accord na yow yaa enclenché waxtaan bi entre président ak Barthélemy dama lay expliquer déroulement bi vas bi ma bi ma bi ma mu waxee loolu mu ne ma depuis six mois maa ngi woote dialogue ëpp na ko sax kenn faalewu ma bi ma pareek Ousmane bi ma pareek Barthélemy dama rendre compte président ma wax ko li ma ci xalaat man li ma xalaatoon mooy dañu waroon a ubbi dialogue Macky woote dialogue ba noppi ne il appelle tout le monde sans exclusive ma yaakaar ne ay niti euh, Sonko dañoo waroon a profité ci loolu ne ko demal ci dialogue bi nga poser sa problème. comme l'a fait Khalifa Sall. comme l'a fait Khalifa saafara problème yi Khalifa bàyyi sa problème demal wuyu ji bu ñuy régler problème bi assemblée nationale ñu régler ndoo problème yi yëpp. il n'a pas répondu tribunal il n'a pas répondu dégg naa ba kenn ci avocat am avocat am yi maître Bathily Samba Demba Ciré Bathily muy saraxu juge bi ne ko dina ñëw mais xëy na nit ñi dégluwuñ ko mais y des gens radicaux de toutes parts y compris avocat bu jóge France nga xam ne dafa dem ba bind règle bind livre ci pour mettre les méthodes de insurrection la théorie du chaos kooku lu mën a xelal Ousmane ñu dugal ko ci loo xam ne pour man impasse la léegi dañu toll ci impasse bu may wax ne nu nunu waxtaan nu nunu jël temps waxtaan bi ma waxee euh, bi ma waxee kooku loolu dama ne ko léegi lenn rek a mën a am ci baaxi président de la république ñu ubbiwaat waxtaan mais waxtaan boobu ubbiwaat ko dina jafe bu fekkente ne dañ ko war a tenir dans les prochains mois yi parce que lii des pour élection yi ñëw